xaydun ab jéng siwaahu bu dul xiif yoxlan def na ko feeñal bakkan moom liñ koy jénge mooy xiif bu yàgg mënee su ko jéngee leneen lu dul xiif bu yàgg ndax bu xiifee rek daal di ñàkk jom ama silaawaan daal ngànnaayam la àll si la nga xam ne xattam na amaana mu tere moom bakkan bii ci moom almutin aji topp ja min hudan ci njub fa shibahum mooy ab reggaay bakkan na ngànnaayam yi nga xam ne moom lay yore fexe ba tere ci kii topp yàlla ak njub mooy reggaay bopp wasij na dunyan jéngub àddina onslatul mooy beru waaye nag beru goo xam ne bi ilmin ànd ak xam-xam waxama leen ak jëfe xam-xam ba li wàcc muhtil faami ngir jëmmi yàlla may aji maye ji ak dégg kon kasob àddina mooy da ngay jàng ba am xam-xam tey jëfee sa xam-xam te beru mbooloo mi bañ a topp grand place yeeg jataay ya nga xamee ne amul njariñ waaye jataay boo xam ne boo fa demee jariñu fa mbaa nga jariñu fe boobu kenn te réwlu ama silaawa ndaal nga naayem ya àll si la nga xam ne tubiidu dana alake bii ci moom foofu moom almuxaalatu mooy jaxasoo fii xëyri mu fii ci lu dul aji jariñe ngànnaay li nga xam ne daal moom la àddina yore mooy jaxasoo bari boo xam ne njariñ du ci juddoo waaye jaxasoo boo xam ne da nga ca jariñu mbaa nga jariñe ca boobu moom du wàññi dara kuy topp yàlla wa sijnu saytaanin kasab saytaane bilaa xilaaf ci lu dul wute sikkirul ilaahi mooy tudd buur ba almaanii kay aji tere lu ñaaw almuhaafi ka di aji jàmmal kasab saytaane moom mooy faral di tudd yàlla rek ama silaawoon daal ngànnaayam la allazi la nga xam ne yesoolu dana note wala nga dana songe bii ci moom mu teen aji topp foofu moom alxufool mooy sàggan wala fi tudd yàlla kon daal ngànnaay mi mu la mën a gañee mooy ngay sàggan ba doo tudd yàlla lu bari waaye boo dee faral di tudd yàlla rek seytaane du la mënal dara wa siñ mu kaso ba lil hawaa ñeel bànneex sukkoot mooy noppi xam maa walif loo xam ne lam yëkku nekkul saa faa idat ni borom njëriñ wani xamaa ak i xéewal bànneex nag ab kaso mooy lépp loo xam ne amul njariñ amalu la njariñ amalul njariñ keneen nee na nga ne ca ceel jàpp sa bopp mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bis pénc nay wax lu baax te ne ceel maandu ci lu bon ama si la woon daal ngànnaayam la àll si la nga xam ne yesul dana songe bii ci moom sax san jëmm fa kasratul kalaam mooy bari wax fil fudooli ci caaxaan kon nag ngànnaay li muy songe moom itam mooy wax caaxaan yu bari soo ko dee def rek doo mën a mucc ci bànneex minal jihaad yi bokk na ci jihaad an yu xaafisa mu wattoonte ala hudoodi rabbil xarsi ci daytali borom aras jàlla màgg na wa ala te kawe na wa yaxifte mu taxaw hinda amrihi faf ndigalam wa nax yi akuk tereem waan yetoo ab waan yetoo ba ak mu tuub ku laxinin wépp waxtu moo tarif mbir mu muy aji tudd tudd mooy reconnaître mooy nongu di zambi yi ci bàkkaaram li rabbi yi ñeel boroomam min xabli an yekoona ci njëkk ba mu laataa nekk moom yàlla saaxitan di aji sànja sànja mooy mere xale yi ci moom ci semaine ci jamono ja bokk na ci jihaat ak sa bakkan nag ngay sàmmoonteeg fa yàlla yamlu muy daytal ya lu mu digle nga yem ca lu mu tere nga sori ko te foo toll ngay tuub te booy tuub bàkkaar ba ngay tuub da nga koy tudd bul yeex a tuub ba sa borom di la mere amin suroté a bokk na ci sarti tuub nadaamatul réccu xalaamaa ca la nga xam ne faatoo faat na ko minal maasi ci ay moy mos jalaa mbir mu muy luñ joyal bokk na ci sarti tuub itam lépp loo xam ne daf laa rëccoon wala yaa ko toyoon mu di ak moy nga jéggulu ko wa niyatun ak yéene allah ya xooda mu bañ a dellu lu gunóo bi jëm ca bàkkaar ya muddata umrihi diirub aw fanam li xaw fii ngir ragal gam ragal alxarib yàlla mi nga xam ne moo ko gën a jege ndax wa nahnu aqrabu ilayhi min xablil waridi yàlla nee na doomu aadama noo ko gën a jege bu mu xolam bii nga xam ne dafa sax ci xol bi nga xam bu daggee mu daal di faatu ngay xalaat sa borom moomu ak ragal ko mooy tax foo toll ngay tuub te yéene dootoo dellu ca bàkkaar ba mukk ngir ragal yàlla waan yekkoon ak mu nekk taarikal ansiyaan di aji bàyyi mooy ga inkaana njëm nekkoon na ansiyaan di aji mooy bilaa tawaani ci dul yeexe mooy ga nga xam ne moom nga doon mooy bay tuub ca saasa da nga koy daal di bàyyi te fas yéene dootoo ca dellu wala la ko dee di ñeel ko taaxiirun ak yeexe aw tasaburun wala ak muñ muñlu li tawbati ñeel tuub wala yaqul te bu mu wax ne asbiru danaa muñ ataata fii ba dana dikk hidaayatu rahmaani jubaleeg aji yërëme ja ndax fa inna saa naka lii xalaamatul xislaani màndargam geccite la maa saxaawati ànd ak texee de wa raynil xal bi ak muuru xol inni naka man amutu danaa muslu minhuma ci ñoom ñaar muy texee di ak muuru xol bi rabbi ci sama borom ki nga xam ne tam day tuub bu mu ne naa nig ba bis sàngam wala naa nig ba jamono sàngam wala mu naan ah suñu borom de naa xaar rek ba mu jubal ma bu ma jubalee ma tuub loolu koo gis mu di ko xalaat wala mu koy wax xamal ne mandargam geccite la geccite mooy abandonnement suñu borom da koo abandonné te ku yàlla abandonné ci toox la jëm day tegtaleen itam ku nar a texee di la te ab xolam dafa muuru ndax bàkkaar yu bari itam dana waral ab xol muuru yàlla na yàlla musal ci loolu yi xaqiqatu tawbati dëgg-dëggi tuub tarku ban bi mooy bàyyi bàkkaar sabaxa boobu jiitu na misloo am kemam li wàcc rab bi ngir jëmmi borom ba xalaxtiyaarin ci tànn moo ci coobare laa waxuma ka misli sama mi ni ki kem tëx wa daay farjin ak ràggu pëy wa aman ak gumba wa bakkam ak luy dëgg-dëggi tuub daal mooy bàkkaar boo xam ne da nga koo defoon nga fas yéene koo bàyyi ngir jëm yàlla te ba nga koy bàyyi ca sa coobare la demoo ba ñàkk ci pexe ni ki daan déglu lu bon néeg ba say nopp tëx nga doog naan tuub naa ko loolu amatoo ci pexe wala daan njaaloo dem ba am ràggu pëy nga xam mënatoo njaaloo nga doog koo bàyyi loola tam ñàkk pexe la wala daan xool lu araam néeg ba gumba doog naan maa ngi koy doog a tuub wala da nga daan wax lu araam mënatoo ko yooyu yëpp defoo ko sa coobare da nga ci amatul pexe kon loola duñ ko tudde dëgg-dëgg tuub balli fi nekk tarkoo ak bàyyeem faqat dong li ta'zimil azim ngir màggal yàlla may aji màgg wal xaw fi ak ragal aydan ba tey min azabi ci mbugalam ga al alim nga di aji metti maana daamatin ànd ak réccu xalaamaa ca la nga xam ne xat xalaa wéy na minal maasi ci ay moy wal xuyoo bi ak i xayib mus jala mbir mu mu luñ joyal luñ joyal mooy lu mu mën di doon kon daal buy bàyyi bàkkaar bi da koy bàyyi rek ngir màggal yàlla mi nga xam ne moo tere bàkkaar bi ak ragal mbugal gam nga xam ne bu yomal xiyaamee moom la ko dig ña doon ami bàkkaar di tuub ñu ko boole ko li la jotoon a weesu lépp nga rëccu ko ci mooy ak sikki bakkan yoo xam ne yu mën di doon rek nga di ko rëccu amun surootea bokk na ci sarti tuub itam bi xawlil ulama yi ci waxi borom xam-xam yi raddul mazalimi delloo ay tooñaanga ci laa man jëm te ka nga xam ne zulima tooñeef na ko bokk na ci sarti tuub itam képp koo tooñoon tooñ nga nga delloo ko ko kon nag fal yar di na delloo al amwaala alal ya lil arbaab ñeer woroom ya in wujjudoo njéem fekkeef na leen ad dahra ci jamono bi lartiyaa bi ci dul sikk su may saalami wujjudoo topp njéem fekkee fu leen ci jamono fal yar di na delloo alal ya li waari si ñeel way doonu seen bilaa taraddudi ci dul déng-déngi déng-déng mooy xel yaar su may saalami wujjudoo topp njéem fekkee fu leen jamono ñoom ña leen war a doon te saddaxa mu sarxe bihaa ca alal ja xanhum te yéene leen yool ba kama xakaa ni ki la nettalee ko man ka nga xam ne xaq xaa dëggal na bokk na ci sarti tuub tam ni ko boroom xam-xam yi waxee tooñaa ngi yëpp nga delloo ko bu fekkee alal joo jëloon la seen borom ginnaaw ñu ngi ci jamono nga delloo leen ko su fekkee seen borom nekku fa waaye ña leen wareen donn ña ngi fi nga delloo leen alal ji su fekkee seen borom nekku fi amul ñu leen war a donn nga sarxe ko te yéene leen yool bi loolu kon bokk na ci sarti tuub waaye saxilu te dana sàkkoo daganal ku la xer din wépp der akalaa boo xam lekk na ko bi xiibatin ci jëw aw xasfin wala xaste aw satmin wala ŋàññi jalaa boo xam feeñ na in xadara njeem teew na almavoloo mu ko ñu tooñ ko su ma in fuxit topp njeem ñàkkeef na ko fal yukk sira na baril alxayra aw yiw laxaloo ndaxtalee moom yejidu dana am chey an lëf loo xam ne yu wëdd yi dana mën a jooxe bii ci moom xàq kullim àq képp ci ñoom mustaxfiran mbir mu muy aji jégglu boroomam wala yar jute na yaakaar enfo rab yi njégal boromam bu ko defee nag bokk na ci tuub gu sell itam képp koo xam da ngaa mas a yàq ab deram ci jëw ko mbaa xas ko mbaa saaga ko nga dem sàkkoo dagana mooy nga dem tuub ko su fekkee kookee nga tooñoon mi ngi fi su fekkee nekk fi nag moom mënu koo dem di ko jéglu doomam ndax jëmbi boppam la kon nag kooku doo dem ci doomam kon da ngay fas yéene def yiwu bari woo xam ne bu yowmal xiyaamee suñ tibbee ci saw yiw fayee ko kookee nga tooñantam du teye nga dese loola mën a yóbbu àjjana nga boole ko saxoo nag di jégglu sa borom te yaakaar ne suñu borom dana jéggal ndax suñu borom képp koo xam ne jégglu nga te jégglu nga di gu sell suñu borom dana jéggal kon daal nga xam ne kon ci tënk bi tuub ni nga koy takkee daal mooy ñett yi moo mënu caa ñàkk ni nga xamee ne ku joggi aw xal la koy dal loolee moo war a dal kuy tuub ku joggi aw xal ci saasa da ngay daal teggi sa tànk kon nag boo dee tuub la nga nekkoon ci mooy da nga koy daal di bàyyi da nga fas yéene foo séenateew xal itam doo ci teg sa tànk ni ki noonu tam bàkkaar boobee dootoo ko defati mukk la nga ca jotoon a teg sa tànk itam da nga ko réccu bu ko defee kon bàkkaar boobu nga réccu ko ñetti sart yooyu bu dajee kon ñu ne tuub ga dëggul kon daal da ngay bàyyi bàkkaar ba ci saasa fas yéene doo ko defati te li nga ko jotoon def nga méttitlu ko soo ko defee rek incha allah suñu borom mën na laa jéggal wa xarama araamal na al muntaximu yàlla may aji fayu alxaxaaru kay ab notaakoon rasaa ilan ay caay-caay mooy bi jikko yu bon bihaa ci sababu caay-caay yooyee rasuulu lay songe annaaru sawara suñu borom tabaaraka wa taala araamal na xeeti caay-caay yi nga xam ne mooy sabab dem sawara xat xarama xaraamal na alkasiba fen fen mooy wax loo xam ne dëppoowut ak dëgg wal xiibata ak jëw mooy tudd sa moroom jullit fu mu nekkut ci loo xam ne bu ko déggoon mu naqari ko moo xam dëgg la moo xam du dëgg maanaam na mi matin ànd ak rambaaj mooy yàq ab diggante kibran rëy mooy diis waxuj ban ak aaw aaw mooy naw say jëf xat yàqamu boo xam ne amaana mu tàbbi su ma riyaan topp ngistal mooy looy def bu dee jaamu yàlla da ngay bëgg nit ñi tam gis ko ba tagg la ca kon jëm yàlla kese taxut sum xatan déggtal moom itam da ngay bëgg ñu dégg la ba xam ne yaa ngi koy def bux dan mbañeel di bañ ab julit te amul benn sabab buy tax nga war koo bañ xasadan iñaan mooy lu sa moroom yor nga iñaane ko bëgg mu jóge ci moom ñëw ci yow ru'yata fadlin seet ngëneel koo gis di xool yaa ko gën a moo la gën mot la xam mbir moomu luñ joyal ala axat ci kenn di seet xeetu ngëneel bu mu mën di doon mooy mot la xam luñ joyal wal xam sa ak yéej ji wallam sa ak mbëllee kasaay ni ki nii alxaba su pox suxriyatun reetaane sinan njaaloo kasaaka ni ki nii rafasun beej maa aj ni biitin ànd ak jàmbur bu jigéen koo xam ne du sa soxna te man nga koo takk ndax araamu la kanasratin ni ki ak xool kasaa ni ki nii attalasu sa bànneexu di sawtihaa ca baatam ba xat xarama araamal na ko kon yooyu mu lim yépp nga xam ne di reetaan nit di ko piis wala nga koy reetaani saw làmmiñ wala fo moo xam ne amul njariñ wala reetaan nit rek wala njaaloo wala beej ak koo xam ne sa kooko te du sa soxna te araamu la wala nga koy xool di ca bànneexu wala ngay déglu kàddu ko di ca bànneexu yooyu yëpp araam na wa aklu maali naasi ak lekk alali nit ñi doona tii bi nafsin ci dul teeyug bakkan yu wa dii dana jooxe mooy dana àggale an naf sa jëmm ja li temps si mu jëme ko ci mbugal kal ak li ni ki lekk alali jàmbur bi diini ci sababu diini alal jaa ngi ko laaj ne ci diine nga ko jëme ba noppi jëme ko ci sa bëgg-bëggi bopp bi safaat ak cim ramm jox ma nangam bu yomal xiyaamee ma ramm la waxaak saa ni ki nii ta xiiru fii li taatin yeexi jëfi topp yàlla topp yàlla bu nekkee sam xel te war la rek da nga ko war a daal def waaye bul ne naa nekk ba jamono sàngam ndax xamu jamono jooju daan la fekkam déet te bu la fi fekkut kat kon na nga daal di yóbbaale bàkkaar kon nag palaatakun mu nekk mu waxira salaat di aji yeexe julli xan waxtu yaa wali waxtoom ba bi xayri husrin ci lul ngànt loo xam ne yaat yi daan dikk waxtu julli bu jotee ci saa sa julli ko bu ko yeexe te amoo ngànt soo amee ngànt nag man ngaa nekk ba mu muxtaar ma jàll nga julli ko ci daruuri yi fekkee ba tey ngànt la dañut su jàllee nga fay ko waaye boobu ngànt moom ca saasa nga war a julli ci njëlbéen waxtu wa walaa tuhin bul doye dal mooy di xeeb musliman ab julit laatan tahir bul gëdd musliman ab julit walaa tasuba bul ŋàññ musliman ab julit walaa tu xawif bul ragalloo musliman ab julit wa tub na nga tuub minu ci soo defee yii ma la wax soo xeebee jul doy dal ko wala nga di ko gëdd wala nga di ko saagaaka ŋàññ wala nga di ko tiitloo na nga ko tuub ragalloo googi nag maalam yëkkut feeg nekkut li aj li xàqi ngir ak sarxiin yu di ko jug yoon fekkee nag dafa def loo xam ne lislaam moo ko tere tax nga di ko xub bëgg mu bàyyi ko kon moo tax mu ne amaaluwoon daal loo xam ne àq yoon la falaa yuraa def ko gis saa man yi muy boroomu tere loo xam ne nag moom waru koo def nga di ko xupp bëgg mu bàyyi ko xuppe googee ak ragaloo googu moom terewuñ ko waaye suna ak sunu wattu al al suna làmmiñ ya min fansaay ci ay ñaawteef aw jabaxoo waral na ko aljabbaaru ñaajaakon ba mooy notaakon ba su samaay kay borom asamaan wa ak wattu làmmiñ wi min xabaa'ihil kalaami ci way bon yi wax wal yamiin ak giñ bil xitq ci goreel giñ naa ne soo defee nangam ma goreel la wala soo defut nangam ma goreel la wa talaax ak passé giñ naa ne soo defee nangam danaa la passé wala soo defut nangam danaa la passé yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne dañ koo war a wattu làmmiñ bañ koo wax dafa araam kon xon xaa wattu leen leen aj ma yeneen boole seen yëpp na nga ko wattu ba bu ko wax ci saw làmmiñ waaye sukkum ak seenu wattu basarakum seenu gis minal xaraami ci lu araam aw jabaxoo waral na ko alaykum ci yéen rabbul anaam borom bindéef yi sa bët yi nga wattu ko ba doo ci xool lu araam xamal ne loolu suñ borom da koo waral ci yow wan fajiroo jàjju leen jàjju mooy terew bàyyi leen xan nasarin ci xool li muslimin ñeel ab julit bi nasaratin ci xoolin woo xam ne tuusihi da koy lor doona mujrimi walif aji tooñ nag xool julit xoolin boo xam da koy lor kooku tere nañ ko waaye ab yéefar boo xam ne ab tooñkat la kooka xool googa moom wàññiwu dara soo naka moom xalaykum war na leen fii maa ca la nga xam ne shuria yoonaleef na ko hijraanoo tong ko moom mujrim bi nasihatan ngir laa biiri ko li yartadee ngir dana jàjju ki nga xam ne day mujrim di tooñ tey jullit da nga ko war a tong bu ko tuddati bu ko taas jubloo ci dara nag nga laa biiri ko ndax bu la mënatu ta muñ la tax nga bàyyi ko dana ko bàyyi loolu rek nga ciy jublu waltax soo wattandiku leen sumu bata kulli faasixin ànd ak bépp kàccoor is ngir saaka loolee muy ànd akub kàccoor xayrul laay xindéet muy aji yàlla mooy jaaduwut bil murid yi ci ab taalibe ab taalibe wërta ànd ak ab kàccoor ndax da koy wàll kàccoor ga waltax fa soo wattu leen al aada cër yi juróom-ñaar mooy batnum biir bu ci tàbbal lu araam walisaan ak làmmiñ bu ci wax lu araam farjun pëy bu ci jëfandikoo lu araam wari jilaani ak ñaari tànk bu ci dox jëm ci lu araam waay naa ni ak ñaari bët bu ci xool lu araam waye daani ak ñaari loxo bu ci jëf lu araam wa baax daa ginnaaw seen usu naa ni ñaari nopp bu ci déglu lu araam man raxaa ku sàmm laxaa ñeel juróom-ñaari cër yi anil mahaa si walif moy ya kullihaa yéppam yanta fin dana jëriñu ndax fay kullu képp min haa ci cëri juróom-ñaar xat xaab jumlatan boole seen xat xaabalat jàkkaarloo naag baaban ab bunt mu leen miiraani ci sawara ya fii maa ci la nga xam ne xat sabat sax na wa ma nekkun ku nekk na xaafisaa di aji wattu seen yokk fa def na ko fegal du xool ak tab bi yow mal xanaa bisu coono ba mooy yow mal xiyaam fii naari sil xëxri ci sawara borom noteel ga aljalil kay aji màgg wa man xasaate koo xam ne mooy na almawlaa kilifa ga bi odwin ci cër abadan faw fa baaba buntam ba bunt ba nga xam ne moo nekk ca sawara te tolloog cër boobee baabu asaa bi mooy buntu ak mbugalam xadan ëllëg nee na kon cër yi juróom-ñaar na ngeen wattonteeg ñoom muy biir bi ak làmmiñ wi ak pëy mi ak ñaari tànk yi ak ñaari bët yi ak ñaari loxo yi ak ñaari nopp yi képp koo xam ne sàmmoonte naag ñoom ba defu ci genn mooy dana jariñu ndax cër bu ne ci dafa tolloog ab bunt yi bunti sawara yi juróom-ñaar loolu moo sax ci sunna kon nag koo xam ne wattante naa ñoom ba defu ci mooy bu yemal xiyaamee def na ko fegal muy tàbbi ci buntu sawara soosee waaye koo xam ne am na ci cër boo xam ne moye nga ko fokk buntu wam tolloo sawara da nga fi tàbbi wa kullukum képp ci yéen nag yusalu def na ko laaj an raxin ci càmm moo xam ne raxaa sàmm na ko kama ata naka la dikke bii ci moom xadis su man waxtaanu ka nga xam ne waxaa watt na xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne kullukum raahin wa kullukum mas'ulun an rahiyati yi kenn ku ne ci day dañ lay sàmmloo yaa responsable nag lañ lay sàmmloo ba léegi yow lañ koy laaj cër yi dañ la koo sàmmloo kon nag boo ko sàmmee wut na nga ko war a sàmmee bu yowmal xiyaamee dees na la ko laaj mu ne amal bu tóonu ndaal biir fan fasoa wattu leen min xaraaj ci lu araam wa subatin akub lënt tanaawulan ci jotliku bilan pisaam ci lu dog biir bi da nga fexe ba bu ci dugal lu araam loo xam ne daf laa lënt xamoo araam na wala araamul tam na nga koy moytandiku wajtahi doote farlu leen fii talabil xalaali ci sàkk lu lew foofu moom sàkk lu lew almuxarib mooy aji jege ñeel ja li sil jalaali ñeel borom màgg na nga fexe boo dee jaamu yàlla tam li ngay jëfandikoo na lew ndax soo dee jëfandikoo lu araam jaamu yàlla ga tam duñ ko mën a nangu mooy tax doo jege sa borom wajtahi doo farlu leen in miltumoo jéem am ngeen ko moom lu lew fexti saaren ci gàttañ lu xam si bayin wala fi rek gaay ndax fay noonu naka rek gaay kat ra suxtiraari mooy bopp wóoru is njër si baxu sax si rek gaayu jëmm minal xalaale ci lu lew mab daw kulli sarri mooy tàmbalikaayu wépp ay fil ahwaali ca mbir ya boo fexee ba am lu lew itam na nga farlu ba bu ca topp sa bakkan foo toll dëkkib reggaay ndax reggaay boo xam ne sax ci lu lew la jóge ci la ay yëpp tàmbalee ndax fii ci nekk ne ci reggaay boobu yi minal afaat ci ay gàkk mooy ay sikk maa loo xam ne laa yus saa defu ko takk kenn mënu ko takk waaye nag tafii dana dikk surtout juróom benn min haa ci gàkk yooye xunaa fii li tosaa ngir takkee fat bari na lool waaye dañ la jox juróom benn yoo xam ne ab reggaay dana ko sabab bu ko dee nga jàpp yooye te yooyu doy na sëkk mooy tax siitul xuloo bi wowal xol sa xol bi day wow ba dootu am leeru ngëm yàlla dootoo nangoo waaru doo am itam yërmande loolu reggaay bu ëpp moo koy def ifsaadul xuqol yàqum xel xel mi day naqari dootu mën a jàpp dara ibtaaluhaa neenal ko xifsan ci gott mokkal da lay jafe mokkal googee nag xam nga ne yu sax yi mooy wéral am na xoola toxalee ndax bu fekkee li ngay jàng lépp mënoo cee mokkal dara kon doo mën a netti loo xam ne lu am njëriñ ndax lu ci bari danga ko war a mokkal te reggaay bopp dafa la koy xañ wa siqalul a'daay ak diisu cër ya min ibadatin wala an ibaada walif jaamu yàlla cër yi day diis a diis ba day tayal ak jaamu yàlla wa an xulamin ak walif ay xam-xam yoo xam ne xat xawat làq na ifaadat ak jariñ da ngay tayal ba jàng tam doo ko man ndax tëdd nelaw doo ngay nekk sam xel te it xiifaay boobu tam yan suru day dimbale ak seytaan seytaane ndax daal topp sa bakkan doo nga ciy bëgg nga nga ci daal di bëgg wala saat ak i bànneex ay dan ba tey yu xaw yi day dëgëral kon nga ne wuyu xaw yi kon dana dëgëral àlla saati bànneex ya ay dan ba tey mu ne kon pastoroo wattandiku leen al afaati gàkk yi gàkk yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci reggaay bopp te lim na ci juróom benn mu ne wa talabul xalaali sàkk lu lew fardun farata la yant nii joo xam ne dana askanu li kulli muslimin ñeel bépp jullit bi xayri woo xamee ci dudul defe sàkk lu lew daal farata jullit ci jullit bu ne ndax laayan fa du jariñ alxilmu xam-xam bu bari wala al ibaada du jeeginu ak jaamu bil ak li ànd ak lekk lil xaraami ñeen lu araam inda saadati fa sang sa kon xam-xam lu mu bari bari ànd ak jaamu yàlla gu bari waaye ka koy def lu araam doon lay dunde xam-xamam boobee ak jaamu yàlla googu du ko amal benn njëriñ wante siroo wattandiku leen minal la si ca la nga xam ne ay xantum wóolu ngeen di kaw nii ci nekkam alxaraama li lu araam aw zanantum wala jortu ngeen ne sax lu araam la kon lépp loo xam ne wóor na ne araam na wala nga jortu ko sax na nga ko wattandiku wal tag tafoo na ngeen doyloo bimaa ca la nga xam ne yu xiimu dana mën a taxawal asul ba ndigg la mina taxaami ca ñam wa li tutiyoo ngir ngeen topp ar rabba buur ba ñam wi nanga ci doy looloo xam ne da nga ko mën a taxawe ba jaamu yàlla rek loolu doy na ci sëkk ndax ina taxaama naka ñam wa inda aakilin fas aji lekk malihun aji xoromu la laakin waaye yasiiru dana mujj ba du ca ginnaaw ba xaa itam di ay xayt xabiixi di aji bon ñamoo boo ko dee lekk moom dana neex waaye da ngay xool mujj fa muy mujj mujj nekk xaytu yoo xam ne tàqalikook moom dong ngay bëgg kon nag jëlut jërut di ci jël loo xam ne daf lay lëjal ba teelaa jaamu yàlla wanta bi mooy yeewu leen ne fii am na axdaa ci naka cër yi tashhadu dana seede aleykum ci yéen xadan ëllëg fii maa ca la nga xam ne wara da rot na ci alquran yow ma tasadu alayhim alsinatuma aydim wa arjulum ma kaanu yamaluun mu yowmal xiyaam bi nga xamee ne seen làmmiñ ak ak seen i tànk ak seen i loxo kenn ku ne day seeree la nga ko daan defloo ndax dañu mel lu ñu soppi koy jëmm di ko waxtu doo ko mën a weddi loolu nag ku ko gëm war ngaa wattandiku di ci def loo xam ne lu araam la boobu ëllëgee bu la ko seeralee doo am wenn lay wala tax la moo na ngeen xam ne bil xasratil usuri ci fukki cosaan yi waxal tax la moon na ngeen xam kon bil xasratil usuri fukki cosaan yi fa innaha naka moom masaaliku wusooli mooy sóobukaayu àgg ga am na fukki cosaan yoo xam ne ci sóobu ci yoon yi te bëgg a àgg fa nga jëm fokk war nga leen a xàmmee faltaxtahu na ngeen dog ak tasiifa ñuul niigal ñuul niigal mooy loo war a def tey nga ne naa néeg ba suba wala naa néeg ba ginnaaw suba mooy ngay jëfandikoo saw fa rek danaa fas yéene naa koo def waaye doo ci daal di def te moo benn ngànt loolu nañ koy wattandiku xasiroo gàttal leen al amala mébét mébét mu bari da lay tax a dugg loo mënul isiyir lay sa yum ki nu déet muy jàpp ni amalun jëf doona sëy ni walif yaari yii jenn jëf ju mën a sotti ju la amal njëriñ doo ko mën a def bu fekkee da nga saxoo de niig niigi ak guddal say mébét wal tamit soo sàkku leen idaamatal muraaxabati saxal fugloonte fa hiya moom jaalibatun aji bijj la ilaa husnil xitaami jëm ci rafetu mucc foo toll na ngay bàyyi xel sa jëmmi bopp ji di ko contrôler bu bañ koo bàyyi muy boy def di dem ci loo xam ne lu neexul yàlla la ndax soo dee fugloonteeg moom loola moo la mën a indil ci mujj gu rafet wa man yadax koo xam dana bàyyi ku la fudoolin yëpp caaxaan yoo xam ne lam yaxus làqut jam xan ak doole ala rabbil barit ci borom bi léegi yëppus dana texe képp koo xam daal caaxaan yoo xam ne du la dajaleeg sa borom bàyyi nga ko nee na kooku mooy texe da ngay fexe ba nekk ci loo xam ne daal lu lay amal njëriñ lay doon waxariroo na ngeen goreel min qabli fixi lim njëkk jëf niyatan yéene wal taxrifoo te na ngeen xam rasaadoo jëfug jub ja waxayoo akug réeram jëf jenn ju ne bala nga cee tàbbi na nga xàmmee ji jub ja ak ju jubut ja te boole ci ak yéene ndax jëf ji bala nga cee mën a am njariñ fokk nga yéene ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imrin maa nawaa jëf moom ma ngay amee solo ci yéene ja la nga ci yéene rek loolu lañ la ci fay wattani boo teet leen alxawaatira xalaat ya arradiyata ya di bon xalaat bu bon sax bu ko nangu di xalaat ndax boo ko dee xalaat doo loolu may nga gëm ko te boo ko gëmee daal di koy jëfe kon nag wala si moo taxoo leen ak alxawaatira xalaat ya almardiyata ya di gërëm foo toll deel xalaat lu baax ndax boo ko yàggee xalaat da ngay mujj mu sax sam xel nga gëm ko daal di koy jëfe mu ne takfiiru xultatin baril ak jaxasoo bilantifaaxi ci lu dul jariñu daaxin aji woote la ila dunubi jëme ci ay bàkkaar wal xijaabi ak kiiraay baril jaxasoo goo xam ne amul benn njëriñ ci wàllu diine amul ko ci wàllu àddina dafa lay jëme ci bàkkaar yu bari ak yiir sa xol ba du mën a am leeru ngëm waxaali foo wuutale nag nu foo sakum seeni bakkan fii maa ca la nga xam ne daxat woote na la koo jëme ca moom maa tihaamiha ànd ak tuumaal ko fii naa ca lam iddaxat woote wu na ko sa bakkan daal lépp lum la woo jëme ci moom muy bànneex xamal ne da nga koy tuumaal te bu ko ca topp ndax ina nafsa la ammaaratu bi sooy ndax bakkan moom lu ñaaw rek la lay digal lépp lu mu la digal daal na nga fexe ba def safaan ba wala takun te bul nekk sa stihjaal yi boromuk yàkkamti fil fatxi ca ubbi ga fëy noo naka yàkkamti googi de almaxiidu mooy mbërëg ma li rijaali ñeel góor yi masalan su fekkee da ngaa nekk di tàggat sa bakkan di saxoo sikkar ak def xalwatu bu mu tax nga yàkkamti ñu ubbi la ndax yàkkamti googee moo lay xañ ubbi ga mi ngi mel ne bu ñu ko doon misaal daal mbërëg ci góor la te xam nga ne mbërëg ku ko def dootoo am ak laab kon wal tasbit na nga saxal alxas la jublu ga ilaa mawlaaka jëm sa boroom multajaan mbir mu ngay aji wéeru di sukkrima ànd ak sant la nga xam ne awlaaka méngale na la ko foo toll daal sa xol bii na nga koy jëmale ci sa borom bu ko defee làqu ci sa borom booleeg li nga defal ci xéwal foo toll nga di ko sant wadum saxal ala zikri ci sikar maal ixlaas ànd ak selal xol ndax fay noo naka loolu kat attarix mooy yoon wa lil xalaas jëme ci mucc ga foo toll na ngay saxoo sikar di wax laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi te li ngay wax ci làmm yi na dëppoog nekk ca xol ba nga di ko xalaat loolu mooy yoon wi nga am ci lañ mën a jaare ba mucc wala takun te bul nekk mun tabisa shariati di aji sànni sharia ndax fa nafsuwa ak sànneem varihatun aw yoon la ila radaa jëme ci alkali sharia nag foo toll na nga koy jëfandikoo waaye bu fekkee da ngaa jàpp ne waroo jëfandikoo sharia ngir weesu nga ko xamal ne jaar nga ci yoon woo xam ci alku dong la la jëme wansar na nga wattu raxaaka yàlla na sàmm la allahu yàlla antu saaki na nga dëkkaaleeg xayral jaliili ku dul yàlla may aji màgg saahiran ci saahir wa baatina